On vous l'a annoncé tout à l'heure, c'est la journée des rétros et des semi-rétros sur TSFM RTS avec euh, Viviane euh, Chidid Samanene. C'était il y a quelques années, titre phare de la grande chanteuse sénégalaise. Euh, demain, un nouveau café matinal et tout de suite maintenant, c'est le bloc info en Wolof et en français avec Pape Ndao la présentation. Salam alaikum, Pape. jaajëfal bu baax a baax ci café matinal bu tonique boobee ak ci tibb viande bu am solo be boobee ñi am jëkkër nañ ci téye ñi amagul tamit nañ fexe ba kañ nekkal ñu téye ci ba mun leen a takk donc loolu mooy message suba gi di la jaajëfal bu baax a baax nees kiis ñu dem ci xibaar yi. man fu ma mën toll ci diiwaan bi. Thiès FM rek laay déglu. ndax li ma soxla moo ma koy jox. leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu gi ngeen teewlu programme Thiès FM 100 point 6 juróom-ñeenti waxtu jot ba teg fanweeri simili ak benn waxtu xibaar jot li ci gën a fës bokk na ci ña fare mbuurkat jamono ji ñu yeewu ak yeewu bu neex a neex a neex ndaxte njiitu réew mi di président Macky Sall di déclassifié na lu tollook juróom-benn fukk ak juróom-ñaari hectare ñoom ñooñee mën a garder seen kër ca wàllu mbay ñu jàpp na Thiès démb sargal na mbaykat yi gën a xanañ ci diwaanu Thiès élection danañ ci àddu ak li nga xam ne mooy plateforme jàmmi réew mi ñoom nag ñuy ñaan élection yu mucc ayib te ànd ak dal tàggat yaram ak ganu kër gi dana ndar képp xibaar yi. xibaar yi Pape Mamadou Amsatou Ndiaye ci xarale gi fare ca diwaanu Mbourkat extension mën nañu noyyi bu baax a baax daal di sax su leen neexee gundaanaat ndaxte njiitu réew mi président Macky Sall déclassifié na lu tolloog ci juróom-benn fukk ak juróom-ñaari hectare ñoom ñoo ñee mën a garder kër yooyee nga xam ni commencé woon nañ koo toj ak a nangu mu mel ne loolu indi na mbégte ci bërëb boobee ñu déglu ci micro euh, trottoir bi nga xam ni Salimata Gueye def na ko. ñu ngi exprimer suñu contentement di ko remercier te xeex bi xeex bu yàgg la daaw ñëpp gis nañ toj yi ñu fi tojoon ay kër ba léegi mbir mi sotteegul woon donc naqar bi mu juróon si àdduna bi yëpp ñëpp di ko gis mu ñu doon benn gàkk-gàkk bu ñu xëy rek daaneel seen kër kon bu ñu xëyee benn après président dafa décider régulariser ko donc loolu ñun dañ koy kontaan parce que xeex bu yàgg la woon metti woon na lool nag xeexu ay ati at wala ñaar fukki at bu nekk population daj nañ ko fi donc gis ngeen fii yi ñëw na courant am na fi ndox am na fi donc régularisation bi donc régularisation bi yaakaar naa warul jafe parce que tey boo fi bëggee defaat benn lotissement yaakaar naa di fi nit lu bëree bëri donc population yi li ñu bañ moo ñu aligné leen xool fi nga xam ne mbedd war na faa jaar mbedd jaar fa fi nga xam ne infrastructure war na faa nekk infrastructure nekk fa maintenant ñu bàyyi population ñu dëkk si jàmm mu bañ a amat ay toj di rabbi alamina am na ko tamit ñi ngi koy wax ni ko comme ñi nga xamante ni yàqule woon nañ leen mottalee rek ñu a sant bu baax ndaxte fii nii toj bi métti woon na lool daal waaw yëg-yëg bi ma ci am mooy euh, président moom ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que lii wax dëgg yàlla yàgg nañ cee dox di ko xamal ne ko dëkkuwaay bi fii métti na trop trop trop sax bu fu ko waaye takk wees na ko parce que fii ay néew yu doole ñoo fi nekk kenn ku ne di dajale sa xaalis pour wut foo def sa njaboot ñu xëy xëy tas ko toj ko ba pare daal di xaalis sa sutura bon président su ñëwee taxaw ne wax dëgg yàlla dañu koy defaraatal duñ def lu dul sant ko di ko ñaanal. di sant suñ président bi di ko ñaanal yàlla. ah di kontaan lool ci lim ñu defal nii ndaxte ñun ñëpp la ko defal. ndax fii yaakaaroon ne kenn du fi dëkk. fii ku ne ne woon di dina fi dëkk doo ko gëm. ndaxte jaan yeeg lépp ñu ngi ko fii gis surtout nawet bi ñu nekk nii. kon bu ñëwee nii dañ koy defaral dañ koy sant. ko gërëm di ñaan yàlla yal na yàlla mottali lépp. Euh, loolu nag ca Mbour 4 extension la ñoom ñoo ñi nga xam ngeen ne tàmbali woon nañoo toj ci yenn bërëb yi ndax jàpp ne rek amuñu woon autorisation pour dëkk fa euh, forêt boobee sax nag ñu jàpp ne njiitu réew bi président Macky Sall déclassifié na lu tolloog juróom-benn fukk ak juróom-ñaari hectares moo tax ñoom ñoo ñee ñu sant ci bu baax a wax waaye nag ñu jàpp ne lu ci mënti am tamit foog dëkkuwaay ba and ak yoon ndax ay yoon moom ak lotissement bu jaar yoon mëntul ñàkk ñu jóge ca kër yooyee dem ca tool ya ndaxte wàllu mbay ca la ñuy àddu ak euh, programme bi nga xam ne mu ngi tudd sama mbay ñoom nag ñu daal di euh, récompenser maanaam jox ay ndàmpaay yi nga xam ni ñoo gën a fës ci wàllu mbay loolu nag démb la woon ci diwaanu Thiès. Ousmane Bodian moom mooy jiitee eh, kuréel googee eh, di nga xam ne moo ëmb ñii di baykat yi àdduna ci micro Salimata sama mbay c'est la première fois mu dugg région Ziguinchor moo tax ñun ba sama mbay duggee hésité wuñu parce que la manière bu ñu duggee ci village bi euh, manière bu baax la parce que dañoo ñëw ñu saisir les autorités du village waxtaan ak ñoom donc loolu lu leer la lu sur la donc ba ñu ñëwee si village bi waxtaan ak les autorités après liggéey bi wàcc si ñun donc euh, xam nañu lu baax la donc euh, produit yu ñu présenté si ay waxin intrant yi tamit loolu yëpp bañ demee ba commencé suñu inscription suñu paiement petit à petit ak formation yi ba am intrant yi ak semence yi bon xam nañu lu baax la donte jot nañu mën ay enquête pour ñu xam engrais bi bonne façon engrais la le DAP donc euh, ba ay recherche ñoo xam pe engrais bu am doole la engrais bu baax la rendement am tamit dafa extraordinaire les intrants aussi c'est des intrants de qualité intrants yu baax la intrants yu am qualité la donc euh, moo tax ñun surtout ñun ñi nga xamante ay ndaw lañ ñun ñi nga xamante tamit suñu intention mooy investir si suuf si pour mën a nekk ay grands producteurs comme ni ko sama mbay waxee parce que ba mu ñëwee dafa ne ñoom dañoo ñëw pour jàppale les petits producteurs ñu doon de grands producteurs ñun étant jeune duñu hésiter parce que nous devenir de grands producteurs ba ñu ñëwee liggéey ak ñoom xam nañu lu baax la te ñoo ngi ñaan yàlla collaboration tax ñoom béykat yooyee démb naam ndàmp nañ ndàmp ndàmp jox nañ ndàmpaay ñi nga xam ni ñoo gën a xarañ ci at mi waaye terewul xool nañ yan jéego la ñuy def ba mën a gën a dëgëral mbay mi mbay mu doon sax lu am solo lool ci réew mbay nag munta am te taw du am waaye taw boobee ci diwaanu Thiès daal fi indi tuuti gàllankoor ci Thiès Nord loolu tax ba mairie ba daal di jënd ak lu toll ak juróom-benn moto pompe daal koy jagleel ña fare ci yenn diwaan yi Medina Fall quartier Ngent ak Dabayi loolu lépp nag li ko waral mooy dimbali ña nekk ca biir ndox ma ba ñu rek mën a dëkk dëkkin bu am solo euh, ci rawatina fan yi nga xam ne taw bi bëri na lool Babacar Dembélé moom mooy premier adjoint au maire bu maire ba ñu déglu ko. effort yu bari def nañ ko ci pré hivernal bi mooy bi ñuy waajal nawet bi ndax boo demee ci exutoire ngent bi yàkkali nañu ko euh, fexe nañu itam ba wut machine boo xam ni moom moo dindi mbalit ma nga xam ni moo fa nekkoon yaatal ko yóbbu ko ba ma deux à trois kilomètres bassin de rétention bi aussi fexe nañu ba yaatal ko caniveau yi nga xam ni moo nekk diggante ngent ak yi nga xam ni moo jaar ci Amadou Baro njegéen bi yi nga xam ni moo jaar ci marché bi yëpp tamit caniveau yooyu yëpp curé nañ ko ah, yi ci am solo ci wàllu wàllu réalisation pré hivernal bi bokk na ci marché central fi nga xam ne mooy tolloo la bee bi nga xam ni foofu toujours euh, jafe-jafe da daan am bu bu nawet bi amee foofu benn oto mënatu fa jaar benn piéton mënatu fa jaar bi ñu fa jaaree itam ñu joytu woon ko monsieur le maire ba yaakaar naa foofu experts yi ñu fa àndaloon mooy dañu waxoon fii nañu fi def rek euh, benn tuyau boo xam ne moo koy yóbbu ci canalisation bi mooy meilleure solution euh, ñaari fan yi di ñëw incha allah dinañu gis ni machine yooyu commencé nañu seen liggéey bu dee ci éclairage na benn entreprise bu mag boo xam ni lépp luy làmp ci biir kañ yi yaakaar naa moom moo war a ko saytu ba lumière bi yëpp mën a tàkk commencé nañ ko ci marché central ak li ko wër euh, avenue général de Gaulle beeg commune faal foofu yëpp ak euh, Javier Ndione bi yaakaar naa li ci nekkoon ci ay làmp yëpp tàkk na ba jël nañu avenue bi jëm ci Saint-Jean-de-Dieu foofu la ñu yemagum bërki démb dugg nañu HLM Thiali bu ñu paree noonu lañ koy toppee quartier par quartier pour éclairer pour éclairer mboolem yi kon quartier yëpp rek incha allah daañu fa jaar jaxaaw Fall ngent Kawsara yéen a ngi yi ci Thiès FM 100.6 ñu wax ci lu jëm ci élection yii di ñu am dimanche bi di ñëw muy élection pencum ndawum réew mi jàpp ne plateforme bi nga xam ne mooy jàmm réew mi moom jamono ji sol na ay dàllam ngir rek jàmm am ci élection yi waaye ngir ñi nga xam ne ñooy woote ji ak sénégalais yi xam ne lu ci munti am élection yi waru soppi lenn ci doxalinu réew mi euh, xët-xët waru fee jóg wala rek indi lépp lu nga xam ni bokkut ak élection ñu déglu ci Assane Diagne moom mi nga xam ni moo jiite li nga xam ni moom mooy plateforme jàmm réew mi ci diwaanu Thiès. tey bu ñu wootee ni dañuy def conférence de presse sabab bi mooy dañoo seetlu ni ci fii ci Afrique mais lu ko gën a jege fii ci Sénégal à chaque fois suñ naan ni élection rek dañuy gis ni dafay bëri coow dafay bëri ay mbiicoo ak mbaacoo dafay bëri ay xuloo et même sax ay xeex loolu war na tax ñun ñi nga xam ne si tey euh, ñoo ngi ñuy woo euh, élection le 31 juillet ci Sénégalais yépp ñu ni nag loolu warul nekk occasion pour ko ñëw di tombe ci ay violence di di xeex di xuloo ba ci dem sax di yëkkante ak loxo di dóorante ba boo seetloo am na sax yenn violence yoo xam si jot nañ ko noté ci biir réew mi et sax euh, am na ñu fi noté ci ki nga xam si moom mooy le maire de la ville Babacar Diop nga xam ni jot nañ ko euh, euh, fitnaal te yooyu yëpp bokkul ci li nga xam si moom mooy les règles du jeu démocratique ba tax na ñun ñi nga xam si ñoom ñooy kuréel yi nga xam si ñoo aju ci plateforme Jàmmi Réew mi tey li nga xam si moom la ñu taxaw pour yëkkati ko maanaam mooy dañu ñëw di ñaax askan wi ginnaaw bi ñu ko ñaaxee suñu bopp ci nañu def ay élections élection yu ànd ak dal ñu woote jàmm parce que jàpp nañu ne jàmm ci la lépp xaj euh, ba tax na dañu bëgg ci élection yi ñu jublu ñu dugg ci ci jàmm génn si euh, ak ak jàmm li nga xam ne si mooy campagne bi def nañu euh, première partie bi mu des dernière partie bi que ñu ñaan yàlla lépp ñu jaarale ko ci jàmm ba au soir vraiment du 31 juillet que démocratie mën a exprimer wu librement que ñu mën a permettre citoyens yi sénégalaises yeeg sénégalais yi ñu mën a dem choisir ki nga xam si moom moo dal seen xel Eh, ci élection yooyu sax danañ ci àddu ci kanam tuuti ak ganu kër gi di Penda Dieng moom mi nekk mandataire national. bu liste bi nga xam ne mooy les serviteurs moom mi nekkoon ganu euh, sunu émission bi nga xam ni moom mooy wax ci lépp lu jëm ci campagne démb ñu dalaloon ko fii dina doon sunu ganu kër gi ñu des si politique toujours ak coalition bi nga xam ni mooy bokk gis-gis ñoom nag démb wàccoon nañ ci terrain bi di def porte à porte dugg ci kër yi di saafanteek ak ñi nekk ci biir kër yi te fas ne woote ji loolu tax euh, ñu daal di dem ba si talamin euh, daal di saafanteek nit ñi élage Ousmane Gningue bokk ci kenn ci ñi nga xam ne ñu ngi ci liste yi àdduna ñu déglu ko. Euh, ñu ñu ko sekkal euh, ay ay ténor lañu waaw c'est des gens yoo xamante ni xam nañu rouage état donc ñun tamit euh, à notre niveau on s'est dit que li gën a efficace mooy que ñu jege population yi waxtaan ak ñoom approché leen dans les quartiers. expliquer leen suñu programme expliquer leen enjeux yi am par rapport aux législatives et au-delà des législatives des perspectives yi moo tax ñun on a privilégié la la proximité euh, jege population yi on a fait le département Euh, maintenant ce qui reste maintenant les trois jours qui restent dañ ko consacrer uniquement pour la euh, la ville euh, aujourd'hui c'est hier c'était Thiès Nord aujourd'hui c'est Thiès Est actuellement euh, ñu ngi nii c'était Lamine du war a jaar def le def le le tour de tous les quartiers de Thiès Est. Ah, ah, discours bi lan la lan la war a doon. non discours ngeen bëgg a indi wala xalaat na mën ngeen ko indi. waaw rupture bi daal lañ bëgg a créer parce que li am assemblée nationale amul sénégalais bu ko ignoré. amul sénégalais bu ko ignoré même ñoom ñi nga xamante ñoom majorité à l' assemblée nationale sax ils ne pas satisfaits vraiment de la qualité euh, des député yi nga xamante ñoo war a siège au niveau de l' assemblée nationale. tàggat yaram ci lañu jëm ak dadikul moom mi nga xam ni ci suba moo leen jox kafe bu saf-saf boobee ba ngeen mën a yeew bu baax a baax dadi salaamaaleykum. maaleykum salaam Pape. ñu door tàggat yaram ak li nga xam ne moom mooy nawetaan ndaxte tey ci ngoon gi danañu amal final régional bi nga xam ne naam daaw lañ ko waroon amal. waaye dañ ko ajoon ba ren mu mel ni dinañ ko aji tey ci ngoon. match yu am solo Pape ci stade Lat Dior lay amee bu 15h jotee euh, ci wàllu kade yi avenir club de Thiès dina euh, dajeek ASC Thiocé de Mbour su 17 jotee si mag ñi senior yi donc euh, final bu amoon daw moom mooy avant ren Cité Lamy dina dajeek Jalooré. si tarami ak jaloore final boobee mën nañ ko tuddee remake de la finale de la saison dernière ndax ñoom ñaar ñoo daje woon ñu témboo woon kenn ku ne dugaloon sa morom benn bal ci dàq door ci mbaal ci la jaloore di daan si talamin ñoom ñaar tey jii dinañ xam ca stade Lat Dior kan mooy doon buuru région bi te ku boobu moo nekk en jeu ci région bi la ñuy des ak tout tànk yi quart de finale championnat régional ci junior yi ñoom it dinañ jongante waaye suba lay doon. suba lay doon Pape ci Mbour à 15h euh, Mbour ASC dina dajeeg jàmm gën Antoine su 17h30 jotee Océan euh, Océan FC dina euh, jàkkaarloog Toglu euh, fii ci Thiès ci stade de la Dior ci Maniang euh, ci stade Maniang Soumaré su 15h30 jotee Morolan euh, dina dajeeg US euh, Thiessoise su 17h30 jotee académie team dina jàkkaarloog université bu Thiès. ñu jógee ci réew mi daal di dem ca Tugal mel ne foofee tamit amoon na ay jongante xarito. yu am solo yu am solo ci ñu téye ci bu FC Barcelone ak Juventus de Turin mm. ñoom nag dañoo def match ñaari bal %e ndam dikkul ku ne dugal sa morom ñaar ku euh, bi nga xam ne xaar nañ ko trop :fra ci année :fra bii moom moo def doublé :fra sax ci %e ci ci ci FC Barcelone ah, kon mu euh. mel ne Barcelone bi mu jógee bi mu daanee Real dafa nul ak %e Juventus Real Madrid moom tamit mel na ne moom doon na joŋante. ñoom nag %e mexicain yu américa lañ doon dajeel [r] gis ci performance bu baax bu Real Madrid mais :fra ndam dem demul aussi euh, ñoom ñaar dañoo ku nekk dugal ñaari bal sa morom comme match FC Barcelone bi euh, Karim Benzema ak Eden Hazard ñoom ñoo dugal bi waa Real Madrid. di ko jaajëfal bu baax moom Dadikul mu ñëwaat ak ñun ci version nasaraan bi di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu gi ngeen teewlu sunu programme ñu daal di rek déglu kii nga xam ne mooy ganu kër gi ndaxte moom mii di Penda Dieng moom moo nekk mandataire bu euh, liste bu les serviteurs démb démb moo nekkoon sunu gan fii ci émission carte sur table ñuy wax ci lu jëm ci wàllu élection yi séq na waxtaan ak ay Aïssatou Tamba ñu déglu. Penda euh, ma bàyyi la nga présenté wu euh, ci kanamu auditeurs yi. alors man Penda Dieng donc euh, mandataire coalition les serviteurs MPR di doomu Thiès juddoo fii màggee fii euh, également investir ma également ci liste nationale bi à la quatrième position. le fait que ñu tabbal la noonu investir la euh, quatrième position ban yëg-yëg la def ci yow. waaw pour man honneur la déjà mais je pense que avant loolu yëpp liggéey la boo xamante ne nañ ko def donc projet bi bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoo ko mettre en place liggéey ci pour mu taxaw donc je a été porté sur parce que liggéey nañ ko fa et puis euh, je pense que dañu continuer di ko fa liggéey donc loolu tamit bokk na ci li gën a tax ñu a ñaax sa jigéen ñi investir nañu pend de pourquoi pas ñun ba tax ñu war a mën a dem former wu ji ëllëg ñu mën a am yeneen ndomba tànk. waaw loolu tamit bokk na ci parce que ñun dañoo gëm ne ci liggéey bi ñuy def foog ñu ànd ci ak jigéen ñi mais foog ñu ànd ci aussi ak ndaw ñi boo dee xool Sénégal c'est très rare nga gis sax déjà mandataire bu nekk jigéen waxtuma muy nekk ndaw donc loolu tamit c'est un message qu'on a voulu lancer tabbuñu ma rek parce que jigéen la tabbuñu ma parce que ndaw la mais dafa fekk tamit am na le bagage nañ tout ce qu'il faut pour être là te yàlla te nañ ci sutura donc je pense que tamit des ci instance politique day baax am confiance ci ndaw ñi am confiance ci jigéen ñi xam ne jigéen ñi nekkuñu fi juste pour organiser ay meeting wala sol ay ndirool yi mais buñ leen defee confiance mën nañ liggéey liggéey bi xamante

ku may woo ci dàggasnat ko du ma ko parce que am na loo xamante ni suñu borom sutura nañ ko jàng nañ ko te mën nañ ko wane cent pour cent moo tax ñu tabbala est que buñ la falee ëllëg pencum ndaw réew mi di nga a mën a doxal sa wareef ca euh, penc ma ngir askan wi waaw moom je pense que c' est c' est normal ñu def am nañ profil de l' emploi te comme député tamit xoolam mooy nga contrôler euh, l' action du gouvernement mais aussi nga mën a proposer ay loi Sénégal ñëpp xam nañ c' est di nga politique publique yi fi nekk donc loolu tamit xam-xam moo koy def jàng moo koy def pas-pas moo koy def te yaakaar naa loolu yëpp yi jox seen que waa serviteur am kenn yaakaar ne ëllëg ak si biir lépp loo leen jëlee ci urne yi rek di ngeen ko nangu ndax am ngeen yaakaar tam am ndam ci bésu 31 euh, juillet bi ñu defee suñu tournée ci biir Sénégal li ñu gis mooy sénégalais yi jàpp nañu suñu candidature bi aubaine de pour pour la démocratie ndax Sénégal yàgg nañu gis élection bu amee mooy nit xiiroo fantasiroo lañ leen xamee waxante lu ñaaw defante lu ñaaw ñu mën dem li ñu a wax mooy yéen yaru yéen baax ay ndaw ngeen te ndaw tamit du ragal da ngay dëggal taxawaay moo tax tey am fu ñu taxaw ci Sénégal même mooy revenir dë dëggal leen seen bopp wax naa ko sànq parce gis nañ ni meeting yi organiser ay grand meeting ça n'a servi à grand chose donc tey ji fekkee député te élection député mooy dem taxawal Sénégalais dem taxawal Sénégalais place nga dem wax ñoom directement comme ñoom nga bëgg dem taxawal il faut que tamit ñoom nga wax ñoom ñu wax seen ay yóbbu bu ëllëgee boo taxawee ko wax mais comme élection pour nga mën leen taxawal am ngeen confiance parce que Sénégal je que dépassé nañ stade bu ñuy élection te yàlla dogal nañ am nañ ay représentants ci bureau de vote am nañ ay mandataires ci bureau de vote ñooñu dinañ tax ñu am visibilité sur ko sur le vote ba au soir du 31 dinañ jot suñu ay PV dinañ mën a di ko jaajëfal moom it Ndeye Assou Tamba moom mi doon dalal ki nga xam ne mooy Penda Dieng nekk mandataire national bu liste bi nga xam ne moom mooy les serviteurs nekkoon ganu kër gi ganu kër googee sax moom mooy ndar képp xibaar yi nees kiis ñu dem ci kàllaama nasaraan.